Ama jël mais léegi ñu ngi lii lii du yoon foog ngeen ñëleñ journaliste yore taxaw il faut tamit ñoom it ñu ñëw. lii ngeen ñëw taxaw ngeen def li ngeen def ñu dem ñu tëj ñangoor gi yéen taxaw bi ngeen taxaw ni amul njëriñ da ngeen di génne ñii ñu pousse journaliste yi ñëw taxaw Babacar waaw waaw dañuy jomal bëri nag non non non pare ba ma soxla taxawal nii rek mun nga sukk sax wàcc mun nga sukk wàcc sukkal démarré waaw baax na baax na bu baaxee dina baax na waaw ah tey dinañ xamal ni bu baax a baax di jéglu waa jàkk ji ndax ñu ne moo ëppoon presse bi loxo jege jàkk ji kon di jéglu kër yi dinañ xamal ni xale bi ñu fekk si moom mooy ki nga xamante ni moom mooy Sokh wala bëri ki nga xamante ni moom mooy gàmmu gay fële ci arène nationale le 15 mars tey open presse bi dañu fas yéene dégtal ki nga xamante ni moom mooy Sokh micro bi mu wax ñu lan la fas yéene indi ci combat boobu ci diggante moom gàmmu bi Sokh maa ngi lay nuyu waaw avant tout damay wax onze bila bisimila ina wali yàlla onze bila bisimila ina wali yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul maa ngi sant sama wasila sama yaakaar ginnaaw yàlla ak yonent bi sëñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaa di sant waa Touba gépp di ñaanal sama baay Murit Mbay yàlla guddal fanam bu wér di ñaanal waa Tiwaawan di ñaanal képp kuy taalibe Cheikh yàlla la suñu borom defal jàmm di ñaanal waa kër maam baay Niass waa Saloum maa leen di ñaanal bu baax di wax seen doom laa ngeen ñaanal ma bu baaxa baax a baax a baax di ñaanal Serif Abdourahmane Fall Tilala yàlla na ko suñu borom yërëm te jéggal ko ay bàkkaaram ci barke naa Mouhamed di ñaanal bépp kilifa diine bu des ci kaw suuf di la ñaanal gudd fan ak wér gu yaram yàlla wéral cër yi ngeen ñaanal ndongo yi te xam ni soxla nañ ay ñaan buñ jugee foofu maa ngi sant waa Pikine sama waa dëkk di sant waa Casamance gi ma juddoo màggee fa yaree fa di doomu Joola njoom ni saafendu muyul keb fe kala Kabrousse kala ñaalu kala yàll kala Guinée Bissau njoom ni saafendu muyul ni waree kuuj la 15 di ci daw de misay sum jaade misay nam ne taxool 7 8 comprendre nga maa ñaanal suma mbokk séeréer yi o fegele séeréer mais si naanu ma paax layaama nun joko njal ga ama nun nu ndamtaamu combat fekke a paax sax waaw gars yi maa leen di sant di leen bëggee yéen ñëpp di ñaan yàlla na jàmm yàgg di ñaanal sama yaay gudd fan ak wér yaram di ñaanalaat sama yaay gudd fan ak yaram di ko ñaanal bépp wayjur di sama papa sama lépp jibi joolaa yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér gu yaram di ñaanal sama mag jetli defet bi yàlla na doon defet bu mujj ci kar yaram di ñaanal waa xam sa cosaan yàlla nañu am jàmm yàlla na mbër yëpp am làmb am ndam di ñaanal Malick ñi ngi suñu président di ñaanal moo sama entraîneur sonn na si ñun bu baax di ñaanal lëbbi di ñaanal waa Pikine yëpp nag di ñaanal Ama Baldé di ñaanal Eumeu di ñaanal Boy Niang beneen message bi may lancé mooy suma frère Abiboulaye Zil Baldé Junior ak Jibi Ama sama rak dañoo tëdd na ci gars yi jàpp yàlla fëgg seen bopp ñu jug doxiwaat seen i soxla ndox ñu ngi woon seen i activité day ay responsable lañ wasalaam gars yi man samay wax ñëpp xam nañ fi ma koy teg gars ak dégloo tuuti waay gars yi gars ak dégloo tuuti comprendre man taalibe Serigne Touba laa ma fu tiit di nekk si nit xaw ma fu ragal di nekk si nit mbiru yàlla dama koy bàyyeeg yàlla suñu borom ndax yàlla mooy maye ndam yàlla moo ma may ci kaw Gamou Gueye mais bu fekkente ni daj coono mooy maye ndam si kàttanu yàlla Gamou Gueye dinaa ko daan waaw man moom xam nga Sénégal lañ ne te itam euh, ay ñu ngi jox cër tamit waa Pikine a baax bu fekkee am na question bu ma lay mbër mi nga jël muy gàmmu gi dafa nekk mbër mu dangereux te yàgg na bëri ak mbër ñu xool leen ci masse mbër mi ëpp ko mais bu ñu demee ci biir géew bi réalité boobu du feeñ parce que bu ñu leen xoolee ci salle yi ngeen entraîné bu ñu leen xoolee ci wàllu masse yaa bu masse macha allah moo feeñ moom moo gën a sew waaw Babacar man gis nga coronavirus bii di lëmbe dëkk bi sax dawuma ko nee naa la ci samay biir wax man taalibe sëriñ Touba laa taalibe Serigne Touba dawul dara yàlla suñu borom rek lay xaar ci ay mbiram mais bu fekkente ni coono ak ñeme lu métti mooy maye ndam gaamu gay dinaa ko daan mais mais mais loolu am na coronavirus moom yàlla bu mu dal kenn sox ku mu dalu yàlla bu la dal mais li may laaj mooy sa digganteeg moom nit ñi dañ leen a xool am na ñoo xam ne dañ ne ma sox moo doole ñeen ñi ne gàmmu géey dooleem da koy nëbb loolu loo ciy wax. boo déggee ma wax la loolu ni la daw ma coronavirus maanaam Sénégal dafa nekk dëkku diine dëkku lislaam ay coronavirus yoonu sénégalais newu ci comprendre nga moo tax daw ma ko ku dawul coronavirus nag ragalul lu metti comprendre nga man Gamou Gueye li may wax ci moom bëriwul maanaam man xale la waa Pikine am sas bu ñu may yenn bu ñuy lim relève yi dañ may lim bu ma nekkul pied damay nekk deux kon liggéeyuma pour Gamou Gueye en tout cas li wér te woon mooy taj naa ay coono préparé naa combat bi Gamou Gueye adversaire bu ma respecté la bu arbitre bi sifflé dinaa def jom def fulla jël ndam li ñibbi si Pikine. léegi li ma la li ma koy laajal Baye Balla mooy dañ daan gis soq mbapat jàpp am bëree mbapat. yëkkati ndaama est-ce que jàpp gàmmu gee ci ndigg yëkkati dóor ci suuf dina facile ci soq ci bëre. man soq bëre naa qualité bu ne fàtte xaju fi sénégalais dañoo gaaw fàtte ndigal bi ma koy jël dafa duma génération am ñëpp daan leen ma koy jël ñëpp bañ ma jëlal ko sama bopp daan ko Youssou bu léb gi bi ma koy jël aréna tour la génn ma iri ko daan ko mobile lëmbe Grand ma iri ko daan Pape a dàq bëre suñu génération ma iri ko bëre moom am fu ma jaar ak moom kon affaire ay gàmmu gay lii la mën ak lële la mën man duma xale bu ndaw ci làmb te dama màgg waa Pikine nekk sama ginnaaw am ci man yaakaar relève boobu laay sàmm du pour ay gàmmu gay ginnaaw bi ma nuyoo dina